سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل حقدة من لساني يفقه قولي bokku julit yi bokku taalibe yi ñongi xiar siyaar ñëpp kenn ku nekk turum ak santam di leen wax ne ñongi fi ci Milan ci guddi gi nga xamne moy guddi grañan gi nga xamne mom moom wax laylal isra wal mihraj ta alquran andi ci aw saar xam ne asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa muy ay ngeenel yo xamne lu ne xewna ci rawatina nak li nga xamne moy julli nga xam ne ci ràññaan googu la ko suñu boroom jox ki nga xam ne mooy yonente bi sallallahu alayhi wa mu andi ko ci jullit yi xabaar leen ko leeral leen ko mu yemoog juróomi julli ba fi mu toll nii ñi ngi koy def ni nga xam ne ni la ko yàlla santaane te julli mooy li nga xam ne yonente bi sallallahu wax na ne day dindi ay ñaawteef inna salaata tanha anil fahsaa'i wal munkar kon tey bu nu dajee tey ci barab bii nga xam ne mooy Milan ñu ko fii dundal ngir di ci fàttaliku ki nga xam ne mooy sunu yaakaaru tey ak ëllëg Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne yàlla mooy borom ngëneel yi nga xam ne mooy seet ku ko neex mu wàcce ci yow ngëneel yooyu nga xam ne salika fadlullah yuuti man yasa wala sul fadlil azim nga xam ne mi ngi wax naan guddi gi nga xam ne ci la yonent bi rañaane muy mixraaj bi jóge ci al aqsa jëm ca kaw guddi googu moo yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñaar kon ñi ngi toog ak sunu mbokkum taalibe euh, boo xam ne bëgg nañoo def taxaw seetlu ci moom mu am lu mu ñu ci leeral ngir auditeurs yi nga xam ne ñoo safoo Touba Monde bi ñu mën koo am en direct mën a xam guddi gi lan la làmboo ñu koy wax sëñ Oustaz Diop kon sañu Sass Diop Touba Monde bi ñu ngi lay dalal fii ci guddi gu tedd gi nga xam ne ñu ngi koy amal fii nga xam ne ci itali la te dëkk yu bari ñëw fi kon ñu ngi lay jox nga nuyoo su ko defee nga dugg ak ñun nag ci li nga xam ne moo waral guddi gi am ak xar yi ci am yëpp bisimilah. Euh, jërëjëf euh, jëwriñ euh, ginnaaw bu nu sante sunu borom tabaraka wa taala julli ci yonentam bi sayyiduna Muhammad mi nga xam ni lépp moom la. waaye jaajëfalit Cheikh Al mi nga xam ni mooy sunu imaam di sunu njiit di sunu bunt ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di la delloo njukkal bu baax it ci euh, dalal gu am solo gii nga xam ni dalal nganu ko ci guddi gu am solo gu mel nii muy guddi goo xam ni euh, ci nun murit dañu cee am dañoo yor benn xeer ci benn guddi wat cee jam ñaari picc ndax sunu sëriñ ba sëriñ Touba fonkoon guddi gi la ngir la ca yàlla defal sangam ba sallallahu alayhi wa sallam ba daf ko daan taxawee sëriñ Fallou bi nga xam ni meññeetam la dib taalibeem moom it yegg ca yàlla xam ca yàlla lu nu xamul moom itam bés boobu nekk bésub feeñam te bésub feeñuk sëriñ Fallou bésub njariñ la ci mboolem ummatul islaamiya ku ko xam ak ku ko xamut guddi gi nag li tax jullit ñi war koo bàyyi xel en général ndax su ñu waxee isra ak mi'raj loolu ab événement la bu xawoon ci guddi gi waaye su ñu waxee kazu rajab nag moom ab date la buy tekki ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ndeyu koor euh, bu fekkee da ngay wax ci li nu bokk nun ñëpp nag nga xam ni lislaam bi yëpp ci war a taxaw bokk ko muy guddi gi nga xamni nak yàlla daf ko ci invité won mom yunit bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ci njal benu suratul isra wax nga ko lolou legi subhanallazi asra bi abdihi laylan ba laaya ja di daanu it daf ci wax la tax mu invité ko li nuriyihu min ayatina innahu huwa samiul basir kon yàlla wonako pour jox ko sëri ci bu mu muy julli am na yeneen yu mu ko fa won ay kéemtaan yoo xam ni ci xadis boo xam ne Abdallahi ibni Abbas moom moo ko nettali ndax werante yi ci guddi gi bari na am na ñu wax ni ci at mu njëkk bi ko yàlla yónnee la am na ñu wax ni ci juróomeelu at bala am na ñu wax ni ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu la woon waaye lii nuy topp nag ñun mooy li nga xam ni moom la ñu mag ñi bàyyee muy guddi tey gii te ci lu wér lañu ko teg ndax ñu ngi ko teg ci xadis euh, euh, euh, boo xam ni. Abdallah ibni Abbas moom moo ko solo guddi la woon nag gu doy waar guddi la woon gu bari kéemtaan ndax Abdallah ibni Abbas daa nettali mu ne yonent bi moo ko nettali ni ko danoo nekkoon ci néeg sama bàjjan bu ñuy wax Ummu Haani Ummu Haani doomi Abdul Muttalib mook Abdallah mi jur yonent bi ñoo bokk benn baay yonent bi nee na fa la toog di ngonnal nee na ba ñu fa toogee di ngonnal ba ci yàgg am ku ñëw fëgg bunt bi Fatimatu génn di seet kan la booba Fatima mi ngi am juróom-ñeenti at fekk na booba yonent bi déj euh, fekk na booba Aliyin denceegu ko woon radiyallahu anhu parce que Aliyin mi ngi dencee Fatima ca Madinatul Munawwar te rañaan ngi ci màkk la déparé nee na bi mu génnee dafa fekk ci bunt bi jëmm ju ko jaaxal parce que jëmm ji mi ngi yor ay yére yu wurus yu jóge aljanna yor sol ay yére yu wurus yu jóge aljanna ni ko man nag mu Muhammad laa soxla Fatima delsi lépp Abdullah ibn Abbas mooy nettali li ko yonent bi wax bi mu ñëwee bi mu xëyee bi mu ñëwee mu ni ko baay man day gis naa ci bunt bi jëmm joo xam ni jaaxal na ma ndax na mu mel mësumaa gis ku ne mel ma nga sol yére yu rafet ngàbb yére yu rafet te nee na yow la soxla sallallahu alayhi wa sallam nee na ma génn nee na bi ma génnee ndekete jibril laa fekk foofu mu taxaw wa Fatima def niko man wajuma gis jaxal na ma parce que mbakhana mi mu sol dañ ko xob ak wurus te jëba ña nga ca bind la ilaha illallah muhammadur rasulullah waaw mu ne loolu lañ bind ci jëba Muhammad nee bima genné ndek Jibril la waye fofu lu gudde gudde gudde gudde gudde la waye dal li am solo moy rañaan nak moy dox bo xamne ne dox bimu koy dox guddi xajna ba mu dugg ca xaajub ñaareelu guddi bi wuute naag ku xëy nga xam ne ca bi yor-yor la jóg te digg bëccëg jotagul wuute naag ki jóg bi digg bëccëg weesoo ñu ne kooku dafa jànq ndax nit day xëy ci dox mbaamu gont mbaamu jànq mbaamu reñaan ginnaaw bi loolu amee nag dem na am na waqante bu dox diggam ak eh, alburaaq yonent bi nee na bi ma génnee fekk alburaaq ci bitti. nee na damaa yéemu ndax gis naa ko moom moo ëpp mbaam te tollut ne berkelle waaye bi ma toogee bi ma jibril ne tey jii dama bëgg sa boroom moo namm nga ñëw déeyoog moom nee na ma kontaan lool waaye nee na bi ñu génnee ba dara desul lu dul yéeg jibril dafa gantal euh, alburaq dafa gantal am nañu wax ne ruux ga moo dem am na ñu wax ni dafa gént sëriñ Tuubaa nag daf ñu xamal ni moom yonent bi dafa dem xat baata yasri fanaan na di rañaan la wax kon loolu daf ñuy tegtal ni bil bil gis mi jëhëraa sax wax na am na foo am dafa wax ni bil gis mi jëhëraa jëmm ji la sëriñ Tuubaa wax ni moom moo dem moom moo dem euh, ba ci borom bi tabaaraka wa taala xam naa jëwriñ ñu taxaw foofu léegi bu fekkee am na leneen loo bëgg xam nag ci départ bi ci Madina eh, ci makkatal mukarram ba baytil mukadis ak jóge gi ci baytil muqaddis nag yéeg bëtt asamaani juróom-ñaar xanaa nga def benn kii rek nu xool ba xam. jërëjëf soo Sass Diop ñu lay sant bu baax wax dëgg yàlla ni ko tàmbalee moom toorkal la macha allah mais li nga xam ne moom laa ciy laaj eh, diggante boobu nga xam ne. doomam jooju di Fatima génn na ba wax ko ne ko am na jëmm ju lay seet joo xam ne dafa yor ay laaf bopp bi mu yor mbubbum euh, mbaxanam wurus takk ay takkaay yu rafet ñu bind ci jëbi laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu mu wax ne sax ne laaf yi rëy na rëyaay googu bu ko tàllaloon penkook soowu day day day jeex waaye bi mu génnee ba arburaax di baj baje noonu am na lu jibril waxante ak moom xamal ko ne ko kii mooy Habibullah Seydil xalqi wa Habibullah boobu mu ko wax waaye xam nga bi mu nangoo ba siñeek moom contrat xamal ko ne ko soo ma nangoo boole ci ñi nga xam ne ëllëg da nga leen ràmm danaa la may nga war ci sama kaw su ko defee bu ëllëgee ma mën koo puukare woo ci sama kanami nawle yi waaye escale bi nga xam ne am na ci diggante boobu nga xam ne nangu na mu war ko ba ba muy agsi ci baytul maqdis ndax foofu mën nga ñu fee taxawal tuuti am loo ñu ci leeral foofu jërëjëf euh, jëwriñ euh, bi mu waxanteeg alburaaq ba ñu naab ko ba mu dal ba alburaaq xam kii kan la alburaaq dafa wax dafa ko nee ko ndax danaa mën a nekk ci suufu am ràmmam ëllëg muhammad ni ko waaw loolu kay dana ne mën a mu ni ci charte boobu nag ci laa koy jëlee ci laa koy waree ci sama ci laa koy waralee nag ñu dem bi ñu déparé foofu nag صلى الله عليه وسلم نينا نديكتي براق فبت بي ييغ ريك مو تك فا تانك با نينا بي نيو امنا واجو جوت سي يون قف يا محمد اي محمد تخوال ما لا بير لا ياك سا واي صلى الله عليه وسلم نينا غيستوما ويووما نينا بي نيو ديماتي توتي جنين ويوخواتنا يوخو واتنا قف يا محمد تخوال ma laabiire la laabiire sa xeet wi Muhammad nee na gestuwuma waaye nee na ma demaat ba ci yàgg ma gis jigéen ju rafet joo xam ni kawar gaa ngay daanu ca ginnaaw mu taaru lool ni ma Muhammad taxawal waaye nee na gestuwuma nee na daal nuy daw ba ci yàgg rek Jibril ni ma wàccal nga julli ñaari rakka neena ma wàcc julli ñaari rakka bi ma julle ñaari rakka ba noppi nag ma ne ko jibril lutax nga julli lo ma ñaari rakka yi muniko waw ndax fi moy wadi al atiq moy qur wi ñi ñuy wadi al atiq motax ma wàcc lo la fi julli lo fi julli lo la fi ñaari rakka bi ñu demee nag ba yegg baytul muqaddis nak mu la jibril niko waw waji ma njëkk a yuuxu woo ma kan la muniko koku moy wote katum nasaraan yi daa'i nasaara law ajabtahu boo ko wuyu woon rek sa ginnaaw sa xeet wépp dañuy mujj nasaraan mu ni ko ku ñaareel ki mu ni ko kooku mooy daa'i yahud boo ko wuyu woon rek sa xeet wépp sa ginnaaw danañ mujj doon ay yahud mu ni ko jigéen ju rafet ji ma gis nag kawar gi daanu ci ginnaaw gi nag kook kan la mu ni ko ah addinaa ngi noonu nag boo ko wuyu woon rek sa ginnaaw addina sa ginnaaw sa xeet wépp danañ mujj topp àddina ginnaaw boo génnee àddina yow waaye mbalaa ñuy def miraaj bi nag foofu la rañaan gi yem rañaan gi mi ngi tàmbalee baytul muqaddis noonu la ko alquran waxee minal minal minal minal masjid al xaraami ilal masjid al aqsa kon fofu la rañaan gi yem foofu rañaan gi yem fa lay yéeg gi tàmbalee nag muy al miraaj suratul isra mooy nettali rañaan gi waaye li tax sëriñ Tuubaa yebal nu ci suratul najmi nenu nag fal taqra an suuratu najmi njaal benuk suuratu najmi taxul Serigne Touba di wax fi tax muy wax mooy ba nga demee ba ni su ma danna zumiratin fastawa su ma danna fatadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adnaa su ma danna topp mu jege fatadalla mu yooru nag ba jege boroomam qaaba qawsayni kem xala ak ñaari kocci aw adnaa wala sax lu ko gën a jege kon rek comme nee na lu ko gën a jege dem na ba jege boroomam tabaraka wa taala loolu daal moom mooy rañaan mooy foofu la rañaan gi yem léegi foofu jibril ganale na ko indil na ko fa ñetti kaas moom yonent bi moo ko nettali bii ndoxo ci nekk bii soowa ci nekk bii sàngaraa ci nekk ni ko tànnal mu tànn soow ma jibril ni ko tànn nga lëggën boo ko naanoon ba mu jeex saw xeet ñëpp seen yaram dana xaraam safara mu ni ko indi ma jeexal ko jibril ni ko gafati suxuf lamma rufiatil aqlaam ba ñuy xalima ga jógee rek ca kayit ga ca la mbind ma wow dogal ba jàll na ni ko waaye boo naanoon ndox mi xam sa ginnaaw saw xeet danañu lab ci kéefar boo naanoon sàngara si it noonu foofu ñaan gi jeexe wax naa la ni foofu la miraaj tàmbalee boo amee tuuti loo bëgg a xam ci miraaj it nag yéeg ga incha allahu nu xool ba xam lu nu ci barkeeloo. jërëjëf Oustaz Diop sukkuran làkka ñu ngi lay sant bu baax macha allah fa tabarakallah leer na nañ ndax. bi mu jonjoog ñooñu nga xam ne ñoo ko doon woo ba Jibril ñëw leeral ko li nga xam ne moom la moom lañ namoon ak ñooña it moom lañ doon ba mu ñëw ba ci kaw montagne bi ba mu tegal ko ñetti kaas yooyu ba ne ko bii boo ko naanoon sa xeet wi dañuy lab ëllëg muy ndox mi bii boo ko naanoon euh, boo lëgee sa xeet wi dañuy bew waaye bii nga naan mooy bi gën waaye nag soo ko jeexaloon sa xeet wi ëllëg ñoom ñëpp dana yàlla dana leen euh, euh, tabal àjjana waaye yéwén gi ak baax gi tax mu yàkkamti ne ko joxaat ma ko waaye suñ borom xam kon la am laa na mi minal jinnati wa naas dogal ba ñëw na waaw léegi nag bi nga xamee ne foofu nag euh, départ nañ ba Jibril këpp ko ñaari laaf yi ba jël euh, ba foon ko ci diggante ñaari bët yi nga xam ne ñi ngi yéeg nga xam ne wax nañ ne diggante asamaan ak morom ji doxub euh, juróomi téeméeri at la waaye waaw arboraax bi moom xefa xippi la koy def léegi première asamaan si mooy ban asamaan ak nu mu tudd ak nan la fa demee ak lu mu fa bàyyi. asamaan euh, jërëjëf euh, jëw leen asamaan su njëkk soosu wax nañ ni moom mooy asamaan soo xam ni duxaan xaan lañu koy tuddee euh, ba mu fa demee nee na fekk na fa ay xeeti melayka yoo xam ni yéeme nañu nee na fekk na fa melayka moo xam ni dafa toog ci ab chaise chaise boo xam ni chaise u leer la. ay malaayika wër ko muy ñaan malaayika yi di sàbba di amiinu nee na foofu nag la gis malaayika moo xam ni yéeme na ndax nee na malaayika mi foofu asamaan bu njëkk wala juróom-ñaar wala wala bu ñaareel bi waaye ci diggante boobu la malaayika moo xam ne genn wàll gi glace la genn wàll gi safara la nee na malaayika yaa ngi ko wër malaayika moomu yàlla da koo jox junniy bopp bopp bu ci ne am junniy xar kanam xar kanam bu ci ne am junni gémmiñ gémmiñ gu ci ne am junniy làmmiñ làmmiñ bu ci nekk di sabbal boroomam ci junniy lang yoo xam ne yi bokkuñu moo tax ma wax la ni rañaan gi rek du euh, julli rek du sëri ca rañaan gi tey jii rek def naa ci lu mel lu mel xam naa xaj na da ngeen ko dégg waaye foofu nit war na fee jàngee ba xam ni yonent bii nu yàlla wàcceel yonent la boo xam ni ku wéetu ci ay martabaam la tolloowul ak benn yonent ndax Moussa yàlla wax na ko ca tuuri Sinaa ni ko ixlaa na alay yeneen yonent yi yàlla daggasante na ak ñoom waaye kii nag ak lii mu gis lépp te moom darajaam rekk tax ñu bind leen ñoom malaayika yooyu malaayika moomu nee nañu day sàbbaal yàlla naan yàlla maa ngi lay sabbaal yow mi nga xam ne yaa mën a boole safara galaas ba ku ci ne téye sa euh, téye sa cosaan safara bi du seeyal ndox mi waaye ndox mi it du fay galaas gi yàlla yow mi man loolu nag noo ngi lay ñaan xoli sa jaam ñi gëm yàlla nga fexe ba tàppee leen ni nga tàppee galaas gi ak ndox bi xamna pour ma jexal dina la wax ci digënté bobu ciofal la ci mbir yu gàtt yo xamni ci julli ñëw na julli mo gën lépp nak ndax moy defar wax nga ko legi tanha anil fahsha'i wal munkar ndax benen jikko bo am te bàyyi fa julli te do maam Cheikh rafal euh leneen man na la ca fek leneen man na la ca fek euh na gis na fa malaika mo xamni ba mu ñewé fekk na ay malaika wër ko alliwa ju nekk ci wetu ndeyjooram loolu xaj na ci asamaanu juróomeel la ko gis wala ñeenteel waaw gisit garab gu rëy goo xam ne gii moo ko féete ci càmmooñ bi mu ñëwee gis na malaayika moomu jéem na sax ci gàttal dem nuyu ko ndax jibril moo ko ne bi mu ko ne kii kan la dani ko kii kat haasimu lazzaat ba neex bu dem bay neex rek bu màbbee rek kiyee ko màbb ni ko it kii mooy soppe yi kii mooy taqale jëkkër ak jabar kii mooy taqale xarit akub xaritam kii mooy tax jigéen ñàkk borom kër di xaar jeneen kii mooy tax jirim yi jirim ni ko nag kii mooy Azraayil kii malakul mawti demal nga nuyu ko sallallahu alayhi wa sallam nee ko nuyoo fayu nee na jibril ni ma gis nga ko mook Malick may yor euh, safara mësuñoo ree ba leen yàlla bindeek tey ndeysaan mu nuyu ko fayu ko jibril addoog waa càkkalaar ak moom càkkalaar bu mel ni ba mu càkkalaarala woon nag alburaaq ba mu xam ni kii soppee bi yàlla la mu door ko nangul yonent bi sàkku na fa lu am solo ci moom daf ko laaj ni ko yow fii mooy say maqaama fii rek ngay toog mu ni ko waaw mu ni ko fii laay toog mu ni ko nooy jàppee ruuxu doomu aadama yi mu ni ko yàlla damaa tàggal juróom fukki damaa tàggatal juróom fukki junniy melaayika yoo xam ne ci samay service lañu nekk mooy gaa yi nga gis ñu yor ñenn ñu yor xeeji xeeji leer ñu yor ay xeeji lëndëm mu ni ko waaw léegi yow nooy jëlee ruux gi fekk nga nekk fii mu ni ko gis nga garab gee ngay gis ak bunt bee ngay gis koo gis ci nit ñi yàlla da ko wutal ñaari buntu ci kaw asamaan si bii ci la wërsëgam di wàcce bii ci ay ci ay jëfam lay yéege ci la ay jëfam di yéege mu ni ko gis nga garab gee koo gis rek bind nañ ca turam saa yu xob wi laxee jaune tur wa ñuul ma xam ne kii dafa war a dem nee na foofu laa koy xool benn xool bu ma ko xoolee sibburu dugg ko loolu mooy woppindee mu tëdd may yebal ñeen fukki malaayika nag ñuy dem tere tere ruux gi pour génne ruux gi taqale kook deret ji taqale kook sidit yi taqale kook yàpp yaram wi loolu mooy wopp yu métti yi nga xam ni nit daf koy wopp mbalaay wuy ji boroomam laaj na ko fa it nag mu wan ko jëmm ji waaye xam naa maa ngi taxaw fii rek waaw di di di di di di leen sant bu baax itam nag wax dëgg yàlla ci interview bi ndax euh, am na solo lool wax dëgg yàlla waaw koy jërëjëf waaw Oustaz Diop ñu ngi lay sant bu baax euh, ci leeral googu nga leeral ci tënk man cee nga résumé ci lu bari loo xam ne danañ xam ne yonent bi tànnee foog suñ boroom la mooy ki nga xam ne mooy ki gënal yàlla te sëñ Touba di wax naan wa innaka la ala xuluqin asim boobu tëgg ci ak xasida waaye boobu mu yégee ci euh, asamaanu doxaan boobu nga xam ne ci la gisee géej dex gi ñuy wax furaat ak niil dégg nga gisaat ci alkawsar xam xam nga da nga koo résumé rek waaye tubaarkàlla moom tubaarkàlla waaye bi mu demee ci Malick it ba Malick xamal ko ne ko euh, asra asrafil xamal ko ne ko garab gi képp koo xam ne yaa ngi ci àddina xob woo ci gis rek turu nit la turu ndeyam ak baayam balay faatu xob bi dafay lax waaye nag am naa ñeent fukki malaaka yooyu bu ñuy génnee ruu gi ñoom lay yónnee suñ demee ñi ngi tàmbalee ci wewu tànk bi suñ xëccee baag ci wóom bi mu sonn ñu bàyyi ko mu noppalu suñ ko suñ taxawaatee waxtu xëccaat ba mu agsi ci naq bi ñu bàyyi ko mu noppalu pour pour traiter ruu gi suñ demaatee ba ci kanam nu xëcc ko nag ba mu agsi ci buli gi mooy noonu muy def di mel na luy luy xer xeral noonu nee na foofu nag bu fi agsee moom man maa koy xëccal sama bopp su ko defee bët yi day aju waaw daal na ko ñaari xeeje nag ci bii laa koy naan cas bu dee ruuguy texe ma sànni ko ca en liin muy bi sëñ Fallou nekk bu ruuguy texe nag wala cas bi la ma sànni ko ci jaxanama te ci ñaari bunt yi nga xam ne bii ci la wërsëgam di jaar fi la xob wi wadd daal ci sama kaw waaw léegi jërëjëf léegi nag euh, pour mu gaaw ñaari question rek lay doon bii na nga koy répondre muy ki nga xam ne moo yore jaxanama parce que foofu yonent bi wax na fa ay mbir yooyu jaadu na ci jullit bu nekk mu war koo xam ba moytandiku lu ñaaw parce que yaakaar naa sawara woowee moom lu nekk nga fa gis na fay jigéen gis fay góor te kenn ku nekk am na motif bu la fa yóbbaale léegi duggal ñu ci boobu su ko defee nag ñu door a ñëw ci julli gi su ko defee ñu tàggatoo sëñ Diop Moustapha Guèye jërëjëf jërëjëf salaamaaleykum jërëjëf Cheikh Moustapha euh, moo tax ma wax sànq ne du julli rek moo fa ñëw ci sëriñ ca ndax sallallahu alayhi wa sallam bi mu demee bay wër foofu gis na ay mbir yu kéemaane

gis na fa ay soxna yoo xam ne ñu létt seen kawar yi wékk leen ci biir safara seen lammiñ yi di daanu ci seen dëdd yi mu laaj malayka ma ni ko waaw ñii lu ñu def mu ni ko ñii mooy soxna yi nga xam ne eh, eh, dañuy eh, doydal seeni boroom kër walla sax dañuy laaj seen dañuy ñaan seen boroom kër baat léeg-léeg ñuy ñaan baat te cause du am كنا خمنا يونيتي بي صلى الله عليه وسلم وخناني أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير مأبس فحرام عليها رائحة الجنة يونيتي بي جيجن بو جاكار لوك سبروم كر نيكو مايما سما بات تلوكو جار خيوت كردو لالين ورا لالين بولي ون مانكي ووت تربا مانكي ووت دكال غم مانكي ووت يانا خمني موم موي ورا السي يونيتي بي موني بو بابا خيتوك أجنة haram na ci yow mu xeeñ la te àjjana defe naa di ko dand fan wéré at di dox do rek si ci mom wala juróom-ñaar fukk at xet ga di lay xeeñ nee gis na fa soxna yo xamni ay tuba yu gudduroon lañ leen solal ñoom itam seen yóor ya ngay bax ci seen bop ye ni cin di baxe nee bi mu laajee soxna yoy lu ñu def dañu def ko ni dañu ko ni ñi ay soxna lañu yo xamni daawu ñu muur seen bop yi ay jigen lañu yo xamni jigéen góor ñu ñu xaraamul ci ñoom dañ daan gis seen kawari bopp yi gis na fa yeneen soxna yu nekk ci ay mbugalit mooy soxna yoo xam ne ñoom itam bari nañu tey fonkuñu seen boroom kër yi moroom lañu leen di def dañ leen di wax léeg bu tàngee sax ñu la maaj naa maaj naa wajhak sa kanam gu bon gi waaw sa kanam gu bon gi loolu ku ko mën a wax sa boroom kër walla sax nga ni ko sa form yu bon yi ñooñu daal yonent bi indi na ci tukki bii ba mu rombee jahannam ne ñii mbugal gis na ko fa ak yeneen ak yeneen ak yeneen sëñ Moustapha moo war nag ci nun cofeel gi nu ni dañu koy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu bañ ko yemale ci di ko ji di di di ko wax di tëggal yonent bi ak di ko feccal te nu jàngat sunnaam seet li mu nu digal nu ne ci ndax loolu rekk nuy jariñ li mu nuy bàyyi li mu nuy tere nu bàyyi ko ndax yàlla mi nu booleeg moom loolu la nu digal fa maa ataakumu rasulu fa xuzuuhu wa maa nahaakum anhu fantahu lu leen jëmm ji digal rek def leen lu mu leen tere it na ngeen ko bàyyi kon jërëjëf sëñ Moussa nun kontaan nañu baax noo ngi ziar nag njabootuk sëriñ Touba gépp di ziar njabootuk cheikh Mouhamadinil Vadil gépp di ko tàmbalee ci cheikh Aboul Baraka mi nga xam ne moo ci buntu kër sëriñ Fallou tey yàlla guddal fanam dolli ak manam ba mu mën a jiite njaboot gi lu yàgg a yàgg a yàgg ba yeggale liggéeyu sëriñ Fallou bi nga xam ne nekk na ci loxoom ci barke yonent bi yéen itam nag Touba Monde bi kontaan nañu ci yéen yal na yàlla jàppal leen seen tànk yéen itam ba ngeen yegg fi ngeen bëgg a yegg ci liggéey bi macha allah jërëjëf kontaan nañu.

ak euh, sëriñ ostas Diop xam naa kon ci kanam tuuti ñu ngi leen di jox yeneen daje ci euh, yeneen i euh, Oustaz su ko defee ñu gën a mën a leeral leneen li ci des nga xam ne moo ci sa ndax guddi gi du jeex wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.